jërë ngeen jëf euh, mbokki dakaar Actu lu ay di njàmbat lu defu waxu euh, temps yëpp nag yéen a ngi dégg coow li nga xamante ne nii moom moo am muy problème mu Ndingler suuf si nga xamante ne dañ ko jox ki nga xam ne moom mooy monsieur Babacar Ngom te mu jiite Sedima coow li nag mel ni tulle ak màlle ci biir Sénégal ba tax na xam ngeen ne Dakar Actu dafa taq rib ci mbir moomu euh, moom mooy média bi njëkk a dugg pour diffuser loolu waaye nag tey ki ñuy waxal moom mooy le maire de Sindia ndax ku fi am suuf euh, mairie wala communauté rurale moo la ko jox foofee nag mairie Sindia bii ñoom ñoo defoon délibération bi moo waral tey ñu seet si monsieur le maire Thierno Diagne pour waxtaan ak moom mu indi tuuti leeral ci li nga xamante ne nii moom mooy coow li am foofu monsieur le maire ñu ngi lay nuyu alors gis nañu né euh, fi nga xamné mom moy mooy euh, euh wax ji bëri na Euh est-ce que mën nga ñu déllu ci tuuti ci historique gu euh, délibération bobu naka la demee. merci Cheikh Aline ginnaaw bi ñu nuyoo mbokk yi ñi déglu ak di sétane ci Dakar Actu Euh question bi ñu posé je pense que day ñëw ci heure avant de ñëw un peu sur le problème de sédiment dañuy tenir à préciser que la commune de Sindia ak commune u Ndiaganiao amuñu problème limite aujourd'hui ce qui s'est passé limite boobu vous nga dem nañ fa c'était le 10 juillet 2010 C'est 10 juillet 2010 c'est le la ñu projet boo xam ben promoteur bëggoon a fait un mbay la ñu koy Dramé attribuer quelque chose comme 50 hectares à l'intérieur de ces 50 hectares il s'est trouvé que, il y a 9 paysans de je précise bien, 9 paysans de Ndengler, qui ont cultivé ces 50 hectares, dont 13 hectares. 9 paysans de qui occupaient 13 hectares dans le périmètre communal de Sindia. On a fait une délégation avec le conseil rural de Sindia, la commission de Ndengler, Agbus ak les deux sous-préfets autant nous wàcc sur le terrain pour constater les faits par rapport ak ñooñu nga xam ne ñoo dëkk Ndingler di bay si biir Sindia loolu bi mu amee dañ leen a indemniser jiw bañ fa jiwoon dugub les chefs CADL il fa nekkoon muy madame Doy, Yanflé Touré moo du côté de Sindia y a une dame Mbeng elle est allée en retraite mon école du côté de Fissel avons calculé un impenses si jamono yoyu mu donne 2 millions 500 ñu indemniser ces neuf paysans de aujourd'hui même biñ len indemniser fi nga y avait un projet bu signé attribué le projet Diatrofa du président Wade pour lañ orienter orienter pour que nous récupérions les 13 hectares et aujourd'hui sous source, jusqu'à présent nous avons dem ban le fil. le projet là n'a pas vu jour à de ce Dramé on a eu une demande ce mon concéral à Sindia du groupe Sédiment qui demandait 500 hectares je précise bien 500 hectares mon école, l'objet de leur demande après des descentes une commission de bu Sindia en concertation avec les populations de Djirah sur deux à trois réunions on s'est trouvé qu'il ne pouvait y avoir que 300 hectares on a délibéré au groupe Sédiment 300 hectares c'était le 5 le 5 11e mois 2012. Une délibération du conseil de Singa m'a attribué sédiment 300 hectares. Sur ces 300 hectares, aujourd'hui, le mot impacté, faut impacté, d'une fois un paysan de Dengler parce qu'on était là-bas en 2010. bi mu demee noonu euh, sédiment def le def les frais de bornage avec le conseil à hauteur de 30 millions au niveau du trésor public. C'est qu'on a délibéré on l'a donné un acte Nous continuons toujours ce processus bi installation pour installer les 300 hectares on a vu que 300 hectares fi aujourd'hui c'est notre frontière avec Sandiara ce n'est même pas notre frontière avec Ndiaganiao c'est là où on est frontalier avec faut que les 300 hectares yi à installer pour arriver fi nga xam frontière ak euh, un peu Ndiaganyao. cela vraiment vous, vous ñu fay dem vraiment vous faites qu'on y a une image satellite on savait on pensait à une forêt classée parce qu'à 10 mètres ak sa morom pas de gis kon donc tey bu ñu taxee ay paysans dañ fa doon bay vraiment daf may daf may parce que moi j'étais là en tant que vice-président du conseil en 2012 on a signé signé installer le projet de de la sédiment dans la zone vraiment loolu mën nañ ko wax un peu comme comme historique. alors euh, euh monsieur le maire euh, gannaaw historique boobu. Mhm. léegi kon lan moo indi coow li lan moo waral euh, tay, am ñu jóg indi coow bu toll nii ne ñoom seen suuf lañ jël. bon euh, moi je pense que bi ñu continuer si toujours processus bi après installation Babacar Ngom bi mu demee ba nettoyer son terrain on a vu des gens de Ndengler ñëw de réclamer tool foofu après l'installation de Babacar après 2012 quand ñu Babacar ba délimité la surface Quand on a xam fi mu y a des gens de Nengler qui sont naan dañ fa en écoutant les médias si quelqu'un wax man ma jot si si on me dit qu'il y a 80 hectares de Nengler, Ndingler di bay 40 paysans fait qu'il 2012 2012 je pense que fait que nous yëpp mûrir ñor ku am suuf Koumutral moo la aujourd'hui les gens de ne nañ pas prouver des délibérations, même provenant de, de, de, de qui attestent qu'ils ont des 2 hectares, euh, de 40 paysans, 2 hectares, 2 hectares pour avoir 4, 80 hectares. Ça, c'est insensé. Aujourd'hui, la distance, bien que la surface avec Ndengler, mais si on calcule, c'est dans les 5 hectares, dans les 5 km. Aujourd'hui, vous faites que nous réclamer, nous faut que nous devons beaucoup si Moi, je pensais que vraiment le maire la mairie de Ndiaganiao ou l'ancien conseil de Ndiaganiao nous avons clarifié qu'on cette situation mais aujourd'hui on ne l'est pas parce que comme nous ne amul kon ñoom de leur propre gré nous avons le conseil de Sindia daf ko attribué ba pour réclamer ay et que aujourd'hui même si nous avons réclamé, les populations de Djilakh sont très bien placées pour répondre et dire réellement ce qui se passe parce que nous avons koy def ay de village et tant d'autres nous dise une bonne raison aujourd'hui que des gens de Ndengler se proclament de dire qu'ils ont des terres sur le sédiment. Et toujours revenir sur le sol, il y a 9 paysans de Ndengler qui exploitaient 13 hectares dans le périmètre communal de Signa. C'est à côté une partie, la fin du projet sédiment. Une bonne partie de ces, de ces 13 hectares, mais c'est un autre projet, un certain Papal, mon coeur, yortal m'a fait exploiter quelque chose de 5 hectares et qui réclame 20 hectares Mon ñooñu que les paysans de Nengler dem une justice le dossier dem une justice mu am des enquêtes au niveau de la gendarmerie le dossier bi dem tribunal kon aujourd'hui si on revient encore sur le problème de dire que les gens de Nengler ont dans le sédiment ñun daf ñuy jaaxal vraiment amul benn raison pour ko mëna justifier à notre niveau ok kon kon kon euh, nous euh, kon 40 personnes yi nit récolter ça je peux le confirmer nit avons fa nit si tu me dis les 9 paysans yi nga été en 2010 ñu été nañ ce sont des parents à des gens de Djilaf man fekkuma récolte lañ fekk ba indemniser leen 2 500 000, fekk fait ñu bay wadi

ba joxe suuf bu mu moomul kon tey jàpp nañ ni suuf si ngeen joxe yéen a ko moom si sa wax. mairie Sindia ba léegi je défie n'importe su ñu demee limité mairie Sindia moo nekk limite entre Ndiaganiao Sandiara ak Sindia limite yi mu nga fa changé wul li ñu joxe yëpp c'est intégralement dans le périmètre communal de Sindia loolu je vous dis et je confirme. am na ñuy susciter benn débat. Mhm. Euh, di wax ne. Euh, pourquoi de euh, accepter accepté hectare yu toll noonu jox ko est-ce que mën nga mën cela? mais euh, ça c'est vraiment important et je pense que lire le document délibération ça a été bien relaté pays Babacar c'est un opérateur économique sénégalais au maximum qui a fait des preuves aujourd'hui la zone de Djila, bi en 2012 Babacar était le troisième promoteur bu nous, sept pour que nous jox je l'ai dit, en 2010, ces représentants sont là au Sénégal. Sont, sont là au Sénégal. Ils ne pouvaient pas exploiter Fofu parce que c'était une forme de forêt. Il y a un kilifa dîner, il faut 25 hectares. Aujourd'hui, quand il est venu, il a Tisbar, il a fait Takusan. Il veut faire jaamu fa yàlla comme on comme ni ñu ko mën a mais dañu gis ni dafa metti pour mu liggéey ko Babacar li mu ñu proposé ñu gis ni kii vraiment war na ko mën il avait demandé 500 hectares, c'est dans la délibération, on a les demandes. On l'a donné 300 hectares en Yakarni. on je ñu waxoon ak moom dana ko a parce que nous wax nañu les données techniques wax nañu wax nañu capacité de mën a ak avantage yi nga xam ne jamono yi mën na ko indil jilaax vraiment c'est la personne la plus placée pour que mën ñu mën a si alors euh, peut-être euh, avant dernière question bi mhm. euh,

aujourd'hui, il se retrouve avec 224 hectares. Parce qu'on a un sujet nécessaire de dire qu'il faut une zone d'extension du village. Il faut que deux par des habitations, mais il faut également population bi a am ailleurs mën fa et surtout également des boulevards ce qui a réduit surface aujourd'hui de donc on a délibéré 300 hectares aujourd'hui il se retrouve avec 224 hectares les 75 hectares yi nga Et entre le projet et Dilar. et ces 75 hectares aujourd'hui le marabout dont je te parlais Foflenko, lañ euh, et tant d'autres personnes il y promoteurs promoteur unique dans la zone il y actuellement am nañ fa parce que avec euh, vraiment Anida Sergio il a même pu acquérir un souffle, il a vraiment un dans le mais qui savait Dilar dans les années 2010 2011 euh, savait que vraiment il fallait vraiment des gros producteurs pour pouvoir développer cette zone parce que nous gis-gis qu'il était vraiment difficile d'accéder à Djilakh par yon le courant on n'en parlait pas c'est le village bi ëppoon problème mu ndox mais le yëpp convention yi ñu def ak Babacar et que ñu ngi à la lettre même nous sommes dans une commune on a hérité le projet du conseil mais nous ngi pour Babacar si loolu pour que mu def aujourd'hui forage yi nga xam ne en compte pour que population bi man si te bim mu koy teg it am na leneen leneen leneen loo xam ay avantages yoo xam population bi doon nañ ko am si si si si projet peut-être euh, sama dernière question moom mooy. Mhm. Euh, monsieur le maire euh, gannaaw bi la Dakar Actu gërëmee mhm. gis nañu ne ñëpp dañuy wax ne Sinja Sinja suuf. Mhm. Sinja Sinja monsieur le maire ken mënu ko jot. te xam naa ne dinañ amaat yeneen waxtaan war nga ñu ko mën a dig ndax problème mu suuf moom la nga ko lool. Euh, effectivement, Sindia souffre parce que Sindia, c'est le réceptacle de l'aéroport aujourd'hui. Quand on dit l'aéroport euh, international Blaise les avantages de l'aéroport, c'est dans le Sindia. Aujourd'hui, si nous prenons un peu le, le, le, port de Ndayam, après le cas où on aura installé le port de Ndayam, Fille de souffre, c'est dans le Sindia. Et que tout le monde un rue vers Sindia. Aujourd'hui, le problème de foncier qu'on parle de gauche à droite, à 80%, d'un un exemple comme l'installation de l'usine Taifor des Chinois, il fallait que le conseil municipal imprégne aussi davantage pour que nous installions une population et on a pas le mal de qui ont yoo xam départ donc il faut nga def management management avec la population bi ouattan avec borom tool authentique yi fi avec waxtaan pour pouvoir installer tous ces projets l'extension extension village yi tout à l'heure parce que quelqu'un qui savait le village comme Sindia qui savait le village comme Kenyabour, qui village comme Gandigal en 98 Gandigal pour nga traverser ko en clin d'œil mais aujourd'hui Gandigal bokk na de dëkk aussi comme si commune Sindia en moins de vraiment vingt ans mu Ben, benn tey Sindia da ngay vraiment population bi dafa multiplier na par six fois six fois nga dem à Kignangour c'est pareil nga dem jusqu'à Thiafra en allant jusqu'à Guéréo population bi vraiment day augmenté d'une façon boo xam et que ñëpp bëgg am kër ñëpp bëgg am fu de liggéeyee donc kooku il faut nga am une euh, une, une, une gestion foncière boo xam de gauche à droite les gens vont parler dugg na génn C'est pas parce que le maire de Sindia bëggul a bëggul interview avec journaliste mais man dama yaakaar nit heure booy wax waxal loo xam ne dina nit mais wax pour wax aussi amul sens et je pense que jëf moo ëpp solo di wax ñun nañ nekk suñu rox rek di jëf bu wax jotee nag bu wax jotee ñu wax donc comme lii xew ñëpp di si wax donc il fallait ñu ñëpp pour dire wax wax ji bari il fallait ñu leeral li fi que ñun amuñ si problème que Babacar Ngom amuñu problème ak waa Ndingler amuñu problème ak le maire de de Ndiaganao mais dañuy wax li nga xam ne mooy la xew que ñeneen ñi nga xam ne vraiment <laughs> c'est pour des des des raisons politiques que soxla ay post ay donc ñooñu du du du ce ce genre ñu dañ dem si population bi ñu defal population bi lu leen amal njariñ ba ëllëg ñu mën leen fal ay maire parce que ñi agité wu yëpp xam nañ leen dañuy woo téléphone en dehors de ce problème la soo gisee ñun musuñu suñu ngoo wax parce que man je le prends comme un problème politique am ne poste bu ñu soxla ce poste là bañ bu ñu ko soxlaa nañ dem fañ ko soxlaa ñu waxee ko neneen mais buñ quelqu'un qui gagne le sandok gagne le Ndiaganiao loolu vraiment amul sens merci Euh, jërëjëf euh, monsieur le maire Thierno Diagne mbokki Dakar Actu entretien exclusif la woon ak euh, maire Sindia par rapport ak problème mu Ndingler par rapport xëy na dinañ comme ni ma ko waxee ci interview dinañu ñëwaat ndax commune bu bëri ay jàppal bàyyil ci wàllu suuf la mais ñu ngi koy remercier ci accordé bi mu ñu accordé li nga xam ne moom mooy interview bi di wane ne aussi problème mu Ndingler mu ngi noonu Dakar Actu njaaxaanaay la ci tëddee. Euh, InshaAllah, toutes les parties euh, nous sommes ouverts euh, pour pour vraiment recueillir ces khalat. c'est le public qui juge